ñu ngi ak euh, monsieur le maire bu commune bu Ndiop vice-président de l'association des maires du Sénégal débat bi fan yi yëpp yeewi askan wi daañu taxawal seen collectif euh, li nga xam ni moom moo jëm ci seen maire yi euh, yow ban commentaire nga si njëkk a indi ci wàllu woowu waaw loolu dëgg naa ko li ngeen ko déggee jàpp naa ne ñoom dafa am ñu xalaate ne dañoo war a def association parallèle man ma jàpp ne ci sama dundin bi ma gisee AMS ak li ma ci xam ak ni ma gisee association des maires yu yeneen réew yi ni ñuy doxee jàpp naa ne li gën ci maire yi nekkul ñu créer ay association dama jàpp ne li gën ci maire yi mooy ñu booloo créer benn association ba nga xamante ne nekkul association politique nekkul association ba nga xamante ne day xeex benn régime mbaa di xeex benn parti dafa nekk association ba nga xamante ne li ko tax a jóg mooy mu jël en charge besoin maire Sénégal yi te besoin meeru Sénégal yi nag besoin maire APR bi besoin maire PDS bi besoin maire Yewwi Askan bi ou besoin PS bi besoin yi lenn la donc ndax ñoo bokk ay attribution te environnement bi ñuy dund benn la kon nag li gën ci maire ci sama xalaat mooy ñu booloo nekk benn gën a am doole suñu réflexion gën a suñu diversité nekk une riche une euh, diversité politique nekk une richesse ba nga xamante ne dinañu ñu gën a xóotal suñu waxtaan gën a mën a jël en charge association des maires yaakaar naa ne xalaat bu ñu sànni la rek mais jàpp naa ne euh, suñu waxtaanee ñun ñëpp ñu bokk nekk benn jiital intérêt Sénégal jiital intérêt maire Sénégal yi dinañu trouver dem ba trouver consensus ndax depuis mille neuf cent cinquante huit ba léegi bañ créé AMS mosul am association parallèle kon gisuma lii war a jar tey ñuy créé association parallèle loolu sama xalaatu bopp la ñeneen am na ñu xalaat beneen suñu toogee ñu waxtaan du yaakaar naa dinañu trouver un consensus. yaa ngi wax léegi nii euh, li nga xam ni moom jëm ci association des maires ginnaaw bañ ko doon taxawal président bi APR la nekk euh, vice président bi na woon taxawu Dakar kon jàpp nga ni xaj ak seen mbirum politique amu fa. waaw man li ma jàpp xam nga ku xam AMS bu baax xam ni AMS di fonctionner di nga xam ne. affaire kujje politique dunduñu ko foofu mooy li ma la léegi rek président AMS bi Aliou Sall mbokk APR premier vice président bi mu nekk Aliou Ndoye nekk maire plateau biñ ko fay fal opposition la nekkoon ndax mu ngi woon taxawu Dakar ànd ak Khalifa Sall trésorier AMS bi ba léegi c'est un militant du PDS mooy Ablaye Diop donc moo nekk euh, PDS nekkul mouvance présidentielle secrétaire général bi nekk euh, AFP soo xoolee ñoom Bamba Fall yëpp bi ñu nekkee oposition Bamba Fall mooy le secrétaire chargé de l'environnement du du du de l'AMS temps bi mu nekkee opposition donc gis nga ne kon ni ma ko vice président soo ko xoolee ni ñu ko teg tegale am na vice président PD ñëpp nekk ci biir di ci gën a yaatu am na UCS bu euh, Balde am na ci euh, PDS am na ci donc ni ñu ko structuré dañoo jël en contre la diversité politique bi nekk Sénégal ñu organiser ko ndax ku ne ci langue politique boo mën a far nga gis sa bopp ci AMS yaakaar naa nag depuis mille cinquante huit ba léegi noonu lañ koy doxale gisuma lu tax ñu war a soppi eh, loolu te li ma la bëggoon a yokkal foofu rek bala maa tëj eh, gis nga Khalifa Ababacar Sall ni mu xamee collectivité territoriale yàgg taxaw collectivité territorialu Sénégal yàgg a taxaw collectivité territorialu Afrique en tant que ancien président du CGLUA du mosa bañ une démarche unitaire pour ñu mën a boole mairie ndax xam na intérêt bi te li ma ciy yokkal rek gis nga bi ñuy fal Khalifa Sall en Afrique du Sud mu nekk candidat CGLUA cité et gouvernement locaux unis d'Afrique bañ fa demee délégation sénégalaise dans son dans sa totalité pouvoir opposition ñun ñëpp dañoo ma ndax man demoon na dañoo manko woon défendre soutenir votel Khalifa Babacar Sall te temps boobu mu ngi opposition pour mu nekk président CGLA donc cet esprit d'unité d'une unitaire cet esprit de de dépassement cet esprit qui met de l'avant l'intérêt du pays au-delà des intérêts partisans yaakaar naa ñi koy défendre tey ñu toogee ñu waxtaan ak ñoom ak ñëpp xool histoire bi ni mu demee war nañoo mën a trouver benn consensus ba taxawal une AMS fort une AMS au service des maires. ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax monsieur le maire. yoo lay maa lay gërëm di la sant merci beaucoup.